Ibrahima Bal maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay. ngay coordonnateur national euh, programme premier secours euh, ci Croix-Rouge sénégalaise ñu gis ne tey la ñuy màggal bés bi ñu jagleel nag wàllum premier secours muy secours gu njëkk gi nga xamante ne daanaka ñoo ngi koy nemmeeku ci accident yi di faral di am lan mooy solo su li nga xamante ne rek mooy premier secours. waaw euh, jërëjëf euh, premier secours boo ko déggee maanaam mooy euh, ndimbal bu njëkk bu ñuy jox nit si bu amee jafe-jafe accident muy accident si kër wala accident si tali bi Croix-Rouge nag premier secours am solo si institution boobu ndax mooy daanaka mooy identité am si loolu lañ ko xamee ndax Croix-Rouge mu ngi jógee sax si geste premier secours depuis mille huit cent cinquante Euh, dafa am solo lool parce que day permettre nit ku nekk nga mën dimbali sa sa dëkkandoo sa doom sa jarbaat sa jabar wala sa borom kër boo amee jafe-jafe si biir kër gi mën na si biir kër gi mën na daanu mën na damm mën na am crise mën na tàggoog sagoom yu nekk day am donc yooyu yëpp boo boo amee premier secours boo si xamee dara di nga mën dimbali ñi la jeg beneen bi mooy pour ñun Croix-Rouge secours yi li leen di tàggat li si ëpp mooy premier secours ndax loolu mooy li nga xam ni li ëpp solo si si wàllu seen liggéey si wàllu Croix-Rouge mm-hmm. alors euh, yan situation rek ngeen di intervenir yi bu fekkee ne tey euh, wàllum euh, lépp li jëm ci secours yéen a ngi ci taxaw waaw li si ëpp si situation yi intervenir bokk na si li ñuy wax situation euh, planifiée organisée programmée mooy par exemple activité ay gàmmu ay ay activité sportive comme match yi match nawetaan yi gàmmu yi wala màggal yi wala activité culturelle waaye bokk na tamit ay situation d'urgence comme ay catastrophe bu amee amaana même comme at yi passé ni dëkk bi ni mu bëri woon yëngu-yëngu donc manifestation yi donc yooyu tamit bokk na si activité yoo xam ni Croix-Rouge da si intervenir lu bari bari tax euh, secours yi dañ leen tàggat pour loolu. Mhm. alors ndax ñëpp mën a def euh, rôle boobu wala jouer ko tey euh, bu ñu nee premier waaw waaw xam nga ñëpp dañoo war a mën a jouer role boobu loolu bokk na si li nga xam ne mooy objectif croix rouge mooy former li li nit ñi lim bu am solo si nit ñi parce que nit ku nekk rek jàpp nañ ni fu nga nekk war nga mun dimbali sa morom. Mhm. donc moo tax chaque citoyen citoyen bu ne si réew nit ku yeewoo si réew mi war nga am ay connaissances wala ay compétences yi tax nga war mën a dimbali nit ñi. alors am na euh, juróomi geste yi nga xam te mooy yi njëkk saa suñu dajeek ay accident ci mel nii euh, premier secours bi lan ak lan lay doon. waaw xam nga xam nga geste moom geste d'urgence yi moom dafa bari bari na trop ëpp na juróom waaye li ñuy ëpp solo ci accident yi. bi mhm, loolu ñu jot a waxtaan sax ak pompier yi la mooy li ñuy remarqué mooy bu accident amee nit ki. kii war a njëkk woote loolu mooy mooy li wax alerte loolu bokk na ci geste bu ëpp solo parce que bu même bu fekkee amoo connaissance technique yi formé wuñ la waaye war nga xam au moins bu accident amee nan ngay alerter kan ngay alerter Sénégal bu fekkee Sénégal nga nekk war nga mun woo pompier yi muy dix-huit wala nga woo SAMU muy quinze quinze wax accident bi fan la amee ban façon accident la ñaata nit la la impliqué et puis gaañu gaañu ci am na la warul loolu mooy geste bi gën a am solo boo nekkee témoin accident wala boo fekkee accident bu fekkee amoo yenn connaissance yi. Hmm. bokk na si maintenant bu fekkee nag dañuy wax geste yi xam ne mën na sauver nit directement nit koo xam ne dafa fat ah maanaam lekk dara ah, mu takk si bëri boobu am nañu ay preuve ni boo bëri na ay nit yoo xam ne si àdduna bi loolu moo leen sauver mooy désobstruer les voies respiratoires loolu bokk na si beneen geste bu am solo bi aussi mooy nit ko am. nàcc-nàcc bu am bu mag par exemple li ñuy wax hémorragie importante maanaam nit ki nac nàcc boo xam ni bu bu yàggee rek mën na si ñàkk bakkanam mm. ba mu nee fexe ba xam technique yi ñi arrêté wee saignement yooyu arrêté nàcc-nàcc bi boobaa loolu tamit geste bu am solo la mm. beneen bi bokk na si daf lu ñuy wax réanimation cardiopulmonaire maanaam nit bu am arrêt cardiaque nga fexe ba mën ko defal ay massage cardiaque defal ko ay insufflation ba mu ñëwaat loolu tamit geste d'urgence bu am solo la ah, beneen bi mooy li ñuy wax position latérale de sécurité bëri na lu ñu koy def bu fekkee nit ki dafa ñàkk ànd àndul ak sago waaye mu ngi noyyi donc nga tegal ko si position boo xam ne dina mun noyyi même buy waccu tamit xëy na wàccu yi du mun delloo si put bi ba fàtt respiration bi yooyu moom vraiment mooy gestes yi nga xam ne yi ëpp solo ci secourisme. alors euh, yaa ngi ko doon junj sànq muy accident cardiaque gi nga xam te léeg-léeg bu amee xool bi dafay arrêté te tamit dañuy gis ne euh, contraction cardiaque yi du efficace loolu euh, ci cas bu demee noonu ana lan lañ ci war a def. waaw bu fekkee arrêt arrêt cardiaque dafa am moom li ñuy jàngal li ñuy jàngal secours si mooy li ñuy jàngal aussi population bi de manière générale mooy fexe na ni ñuy defee réanimation cardiopulmonaire maanaam da ngay ñëw si gënu nit ki def ay compression li ñuy wax massage cardiaque lu mot fanweeri pompe ak euh, ñaari yoon nga defal ko bouche à bouche donc loolu mooy technique bi gën a efficace mais léegi àdduna dafa dafa dox ba euh, dañuy utiliser beneen appareil bu ñuy wax défibrillateur donc bëri na si ay entreprises yu ko am ay lieux publics ay aéroport ay gare et puis défibrillateur bi day permettre tamit nga mën a relancer cœur bi correctement parce que dina la jox ay instruction dafa lii dafa lee ba ba nit ki mën a ñëwaat. Mm-hmm. lakk-lakk bu amee tamit euh, lan lañ ciy war a def. waaw ama lakk-lakk moom bëri na bëri na luñ siy wax waaye li li ëpp solo mooy nit ki bu amee fu bu lakkee rek dañu naan na nga nañ si sotti ndox. pas ndox bu sedd ndoxu robine mm-hmm. pendant dix wala vingt minutes nga ko nga ko si sotti noonu mm-hmm. même bu dee da ngay jël si suuf da nga koy jëkk si robinet bi wala bu fekkee amoo robinet nga dékk siwo sotti ndox bi boo jëlaatee sottiwaat pendant dix vingt minutes dina tax euh, douleur bi wàññeeku mais dina tax tamit euh, lakk-lakk bi limité wu parce que di dina dina refroidir peau bi der bi ba de sorte que lakk-lakk bi du gën a dugg si biir yaram bi. Hmm. ndax waruñoo gën a def ay sensibilisation ndax gis nañ ne léegi-léegi accident euh, bu amee euh, ñu ci euh, bëri dañuy profité rek di jël ay photo te du ñu bàyyi xel victime bi nga xam ne moo ngi tëdd loolu ndax waruñ cee gën a ñaax askan wi. waaw xam na loolu moom phénomène la bo bo bu bees ak réseaux sociaux yi. Hmm. lu lu lu regrettable na ndax nit ki boo nekkee témoin accident. war nga jéem a def leneen lu dul di filmer wala di jël ay photo parce que temps bi ngay perte di ko filmer wala di ko filmer ay nit ah mënoon nga alerter secours yi hmm. ah mënoon nga alerter pompier yi wax leen lan mooy xew euh, fan la accident bi amee ñaata nit la complété wala ñaata nit ñoo si am ay gaañu gaañu exactement accident bi fan la amee loolu moo ëpp solo que di jël ay photo wala ay vidéo parce que loolu dimbaliwul kenn hmm. loolu moom vraiment lu ñuy regretter la euh, bu baax a baax a baax Mm-hmm. alors ñu gis ne yéexte léeg-léeg def ci am bu ñu woowee sapeur pompier wala sax médecin yi nan ngeen di dundee situation boobu la. Ah, xam nga xam nga xam nga situation yooyu yenn saa yi ñu bëri dañ naan xëy na pompier yi dañuy yéex a ñëw wala sami dañuy yéex a ñëw waaye bokk na si li koy mën a expliquer yenn saa parfois euh, alerte bi ñuy def bu fekkee nit ñi fekkee accident bi teelu ñu alerter wala message yi ñuy envoyé aussi amul précision accident bi fan la exactement. parfois pompiers yi mënuñu tourner tourner di wër endroit bi parce que peut-être amuñu information bu claire mais en en tout état de cause bu loolu amee tamit bu bu secours yi yéexee tamit ñi nga xam ne ils sont fekkee nañ accident bi ñoom dañu war a def seen kéemtalaay kàttan fexe ba dimbali euh, ñi nga xam ni ils sont victimes d' accident euh, mm. ñun jàpp nañu ak Croix-Rouge la dernière fois daje woon nañ ak waa agence nationale de sécurité routière ak pompiers yi ak SAMI et li ñu doon waxtaanee bokk na si nan la ñuy fexe ba population yi xam ni ñuy alerté wi te loolu dafa am solo parce que bu fekkee alerte bi baaxul wala daf ñu ko à temps bon toujours secours yi tamit day ñëw en retard et hmm. loolu parfois c'est compliqué est-ce que waruñoo def yi tamit ay formation ci école yi waaw xam nga ñun Croix Rouge am nañ sax ay programme yoo xam ne dafa cible ay école même si tey jii mënuñu ko def si école yëpp bon boo demee département Thiès par exemple am na sax ay club de premier secours ci ay collège c'est-à-dire ay jeunes yoo xam amaguñu sax âge yu def secours waaye ñu ngi leen di commencé tàggat si yenn gestes yi am na programme tamit bu am ak croix rouge de Belgique francophone ñoom organiser ñu ay session de formation ci écoles yi dans la région de Thiès ak région région de Fatick euh, croix rouge tamit ambitionné na ci temps yi di ñëw xëy na fexe ba au moins enseignants yëpp ñu initier leen ci geste premier c'est vrai que programme bu ambitieux la mais objectif mooy fexe ba enseignants yi comme ñoom ñooy nekk xale yi chaque jour donc ñu mën réagir bu fekkee y a un accident dans l'école bu fekkee am na xale bu fa gaañu de tant que secours yi di ñëw ñoom ñu mën ñëw mën leen dimbali. alors bu weesoo école yi tamit gox ya goxaat yi est-ce que waroo leen fay doxantu euh, di euh, sensibiliser ñaax askan ya fay yeewoo léeg-léeg ñu gis ne yenn accident yi sax dafay am ci biir kër yi. waaw xam nga xam nga ñun euh, programme bi may jiite si biir Croix-Rouge bi euh, nga xam ni Croix-Rouge de Belgique euh, Flandre moo ko financé bokk na si activités yi ñu def yëpp mooy formation si communauté yi daaw ñun jël nañu lu mot trente localités si région wu Thiès ak Fatick ci cinq département yi formé nañ fa daanaka lu mot ñetti téeméeri nit bokk na si loo xam ni pour Croix-Rouge kër gu nekk am benn secours loolu bokk na si li nga xam ne mooy ambition yi daanaka nag ñu ngi siy liggéey xëy na du gaaw parce que nit ñi dafa bari parce que dafa am moyens yi muy laaj aussi dafa bari waaye effectivement c'est important que nit ñi de manière général ñu leen di sensibiliser si geste d'urgence kër gi bu amee problème nii nan nga war mën def bu nit amee problème bu daggee ak paaka wala bu courant laale wala bu lakkee ak gaz wala yooyu yooyu day am solo nit ñi di ko xam. Mm-hmm. ana ban message bu mujj rek booy lancé euh, ñenn ci askan yi ñuy déglu ngir ñu mën a rek moytu yenn yi. waaw xam nga message bu mu mooy mooy nit ñi ñuy gën a di moytu boo nekkee sa kër di moytu li xam ni mën na indi accident gaz yi nga koy toppatoo di ko tëj bu baax vérifier ndax tëj na moytu xale yi di di foowee ay paakaak ak ay yooyu moytu xale yi di jege ay ndox bu tàng ak affaire yooyu boo nekkee si si voie publique bi nag si tali bi si mbedd tamit di moytu di xool bu baax booy traversé bokkoon tamit suñu mbokk yi nga xam ne dañuy dawal scooter yi wala moto ñu bàyyi xel si dañoo war a sol casque parce que bokk na si leen li mën a aar bu accident amee maanaam mesures yi bari na mais li si ëpp daal mooy nit ku nekk tamit delloo sa xel yéen fay def attention et puis bañ di seetaan bu accident amee ba di dal photo fexe vraiment nu ñu dimbaliwee nit ñi Mm. Ibrahima Bal jërëjëf may fàttali rek ne yow coordonnateur national nga euh, ci euh, programme premier secours Croix-Rouge sénégalaise ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jaajëf.